lan Luka Modric dafa nar a bokk ci coach yi déwén foofee ca Real Madrid ànd ak ñoom Ancelotti ci bu bàyyee football maa ngi ciy ñëw waaye bu arrêté numéro 10 bi Mbappé nar ko jël gëddëgaan wax na ci ba xam baax sax mën na jëli des champion ou pas lépp lañ leen di tegal ci bi salaam gars yi bégg naa leen nuyu ku ci nekk seen ab tur seen sant kooku di Luka Modric pour Anca numéro 10 bi est-ce jox Mbappé sax ah waa baax na nag kooku di Ancelotti gars yi moo ko proposé ne ko pour Anca saison bi bu jeexee bu dee da bàyyi. bu dee da ngay bàyyi la ko wax da bàyyi mu ngi lay proposer pour mu ñëw bokk ci staffu coachingu kookee di Ancelotti ànd ak ñoom woyal loolu la ko proposer te loolu bu Modric naree bàyyi loolu du ko bañ nag Ancelotti ku ne mën naa ni bëgg ngaa ànd ak moom gagner de l'expérience ak moom mu ngi noonu ne nag Modric boo xoolee technicien la tacticien la euh, bopp la. bu bàyyee football te coachewul perte yàq la nag euh, vraiment vision de jeu am loolu rek bu ko traduire ci ay kàddoom jàppale ko ci yenn jeunes yi noo mën na créer équipe bu baax a baax a baax mu ngi noonee waaye pour en cas bu demee numéro 10 bi kookee di Mbappé moo ko nar a jël numéro 9 bu Benzema bi Endrick damay ragal mu jël ko noonu daal laa ko gisee xaw ma nag yéen nan ngeen ko gisee est-ce que d'accord ngeen Modric mu arrêté ci saison bi bu jeexee ou pas ngeen bindal ko ci commentaire yi ñëw ci kookee di gën dëggaan moom mi nga xam ne euh, génn na bay leeral que ni baax sax nee na bañ ko laajee nag Barça mën na jël Ligue des champions bi ren ou pas mu ne leen bu waxee honnêtement am na yeneen club yoo xam ne gën na leen a gis ne dañoo ko mën a jël jamono ji muy expérience ak ci euh, mën naa ni jeu yi nga xam ne ñu ngi koy produire waaye teewut nag nee na bu Barça xasee ba qualifié ci quart de finale yi foofu lu ne mën naa am lu ne nag ku leen waxoon ne ne Inter dina dem final ca daaw final Ligue des champions bi. non ñu bëri duñ ko gëm kon nag lu ne mën naa am ak FC Barcelone malgré boo xee honnêtement ci fii ci moment yi ñuy doxee nii am na équipe yu ko gën a positionné pour war koo mën a jël ngeen xamee ko noonu kooku di Olympique de Marseille nag officialisé na kooku di Jean-Louis Gasset mi nga xam ne annoncé woon naa leen ko démb doonoon ancien coach ci Côte d'Ivoire ci Coupe d'Afrique bi weesu mu ngi noonu ngeen xamee ko noonu waaye kooku di Fofana nag gars yi. jóge na Al Nassr dañ koo aale foofee de Al Ettifaq bu Steven Gerrard foofu na le euh, l'Ivoirien de 28 ans moom dañ ko aale ba saison bi jeex bu war faa delluwaat ngeen xamee ko noonu xibaar yooyu moo jotoon tey jii ci euh, mën naa ni 20 février ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné goo suma chaîne YouTube duggal suma bio TikTok nga bës doo ko YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo ba mu jeex loolu nga ñu mën a stoniré bu baax baax ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi koy joxe matin midi soir jàmm ci yéen gars yoon ci yeneen vidéo Good. Oh, hit that one. ما تتكلمش ما تتكلمش اوعى تتكلم معاه كلمه نشيطك والله بتاع دي ابو اللي جابك على التليفون يا الله كمل كمل كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم يروح المانيا لازم يروح المانيا كاس محمد عمل له فرمانه كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوي شده ولا ايه؟ طبعا اقعد راح شويه اقعد راح شويه انت رايح فين؟ كنت عايز عمليه كنت منين يا عم محمد؟ اعملوا له اعملوا له عمليه